mbokk déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu almasi bi yeesu sunu mbékk rëy na ci lu nu mën a dellu si ngir dëgtal leen seen émission yoonu njub nu ngi leen di delloo njukkal ndax seen cofeel ci émission bi bir nanu xarit yi ñuy déglu mbind mi dafa wax ne ci dëgg yàlla du gënale ci lu wér lii nag moo tax tey nu tànnal leen beneen léebu borom bi yeesu mu ngi ko waxoon ba mu yónnee taalibeem ya ñu yëgle ji nguurug yàlla gi dellusi booba ab xutbakat bu nekkoon ca mbooloo ma di jéem a wedamloo yeesu waaye nanu déglu mbind mi ba dégli xutbakat ba wax ak li ko yeesu tontu noonu dinanu gis ne ñépp a yem fa kanam yàlla mbind mi nee na noonu benn xutbakat daldi jóg ngir fexe fiir yéesu ne ko kilifa gi lan laa war a def ba am dund gu dul jeex yéesu ne ko lu ñu bind ci yoonu muusa lan nga ciy jàng nit ka ne ko nanga bëgg yàlla sa boroom ak sa xol bépp ak sa bakkan bépp sa kàttan gépp ak sa xel mépp te it nanga bëgg sa moroom ni nga bëgge sa bopp yéesu ne ko nag li nga wax dëgg la boo defee loolu dinga dund ba faaw waaye xutbakat ba bëggoon a am aw lay ne yéesu kan mooy sama moroom nag yeesu tontu ko ne dafa amoon nit ku jóge woon yerusalem jëm yeriko ay sàcc dogale ko futti ko dóor ko ba muy bëgg a dee dem bàyyi ko fa faf ab sëriñ jaar ca yoon wa seen nit ka teggi benn waay it bu soqi ko ci giiru lewi aw ca bërëb booba seen waaja teggi waaye benn waay bu dëkk samari doon tukki ñëw ba jege waaja gis ko yërëm ko noonu mu ñëw diw ko diwlin ak biiñ ngir faj gaañu gaañoom ya bandaas ko gannaaw loolu mu teg ko ci mbaamam yóbbu ko ci fanaanukaay di ko toppatoo bi bët sete mu génne ñaari posati xaalis jox ko boroom kër ga ne ko nanga toppatoo nit kooku bés bu ma fi jaaraatee dinaa la fay man ci sama bopp lépp loo ci dolli ci xaalis yéesu teg ca ne lu ci sa xalaat kan ci ñett ñooñu moo jëfe nu kuy jëf jëme ci moroomam ba ñu gisee nit ka sàcc ya dogale woon xutbakat ba tontu ko ne xanaa ki ko won yërmandeem yeesu na ko nag demal tey def ni moom mbokk yi ñu déglu noo déggandoo nettali bii yàlla du gënale kenn ak moroomam xam ngeen ne xutbakat yi ni ñu ko fi waxe woon ay boroom xam-xam lañu woon ci diine yawut yi ñoom ñooy firikati téereb yoonu muusaa wi yawut yi nag dañu tegoon waa samari ay yéeféer ba tax bëgguñu woon séq ak ñoom dara ba tey am na ñuy jëfe noonu ñu yaakaar ne ñoo gën ñépp te xamuñu ne ñoom fa ñuy natt ngëneel du foofa la ko yàlla di natt xamal ne yàlla ngëm gi nekk ci biir xolu nit lay seet seetul mbubb mu rëy meek yu ni mel misaal mi leer na ci léebu bi sëriñ yéeg nit ñu am daraja romboon nañu nit ka mu soxla wàllu lool waaye ñu teggi du mooyu xool géej ba tey ji lu mel noonu rekk a fi am wante mbetteel gi mooy lii nit ku bokk ci ñi ñu tegoon ñu bon bokk ci xeetu samari yi yawudi xeeboon kooku moo def jëf ju baax ji yàlla tagg naw ko loolu nag dëppoo na ak li wolof njaay di wax naan bu nu demee ba ca cippaandaw ja yuux dana jib fu ñu ko foogewul xutbakat bi ci léebu bi xamees na ne laajam du woon laaj bu dëggu ci moom du woon laaj bu boroom di wut a xam mënees na gis bu leer ne ñaari mbir a ko taxoon jóg benn dafa doon fexe fiir yéesu bi mu ko nee lan laa war a def ba am dund gu jeex waaye yow miy déglu te bëgg xam bu wér lan nga war a def ba am dund gu jeex maanaam lan nga war a def ba boo deewee tàbbi àjjana déglul li la kàddug yàlla wax mu ne na nga bëgg yàlla sa boroom ak sa xol bépp ak sa bakkan bépp sa kàttan gépp ak sa xel mépp te it nanga bëgg sa moroom ni nga bëgge sa bopp ñaari mbir yu am solo ngi noonu ba tax yéesu ne woon yoonu muusaa wi nga xam ne fukki ndigal yi la ëmb tënkees na ko ci ñaari ndigal kepp maanaam bëgg yàlla ak bëgg sa moroom ci mbirum bëgg yàlla xam naa dinga ma ne yow gën a waane nun ba nu bëggee yàlla juddooguloo waaye sama xarit lan mooy bëgg yàlla ci yow nan nga dégg bëgg yàlla ndaxte bëgg yàlla dafay jur déggal yàlla déggal kàddoom waaw ndaxte yàlla ak kàddoom benn lañu ci misaal su maxari nekkee ca gannaaw permi di àddu nga koy dégg danga naan kooku de maxari la moo na gisuloo maxari wante kàddoom nga xàmmee ba tax nga ne kooku maxare noonu la yàlla ak kàddoom duñu ñaar kenn lañu moom la mbind mi wax bi mu naan ca njaalbeen ga fekk na kàddu gi am te kàddu gi ma nga woon ak yàlla te kàddu gi yàlla la woon moo di ki nekkoon ak yàlla ca njalben ga ci moom la yàlla jaar sàkk lépp amul dara lu ñu sàkk lu jaarul ci moom kàddu googu mooy leer gu wóor gi ñëw ci àddina te di leeral nit ku nekk ci àddina la nekkoon àddina si ñu sàkk jaarale ko ci moom te àddina xamu ko kon loolu wone na bu leer ne yeesu mooy kàddug yàlla noonu ki bëgg yàlla mooy ki bëgg yéesu te gëm ne mooy musalkat bi yàlla yónni ngir mu fayal la sa boru bàkkaar jaare ko ci deewam ca bant ba moo tax mbind mi ne soo waxee ak sa gémmiñ ne yéesu mooy borom bi te nga gëm ci sa xol ne yàlla dekkal na ko dinga mucc ndax xol la nit di gëme ba tax mu jub ci kanamu yàlla làmmiñ it la nit di waxe ne mu ngi ci yéesu kirist ba tax yàlla musal ko léegi nu jàll ci ñaareelu mbir mi taxoon xutbakat bi àddu mu ne yéesu kan mooy sama moroom noonu gis nga ne mu ngi doon wut aw lay di fexe wone ne am na ñoñ moom du seen moroom maanaam ay moroomam barewuñu ci xeet wi ñi ëpp ci nit ñi moo leen gën a jub moom miy xutbakat kon sempalu nit rek du mën a doon moroomam ba tax na moom du leen mën a bëgg ni mu bëgge boppam te loolu mooy li sabab yéesu nettalinu léebu waayu samara ji kon li ci borom bi yéesu jublu mooy ci bu jëkk xamal góor googu waaye itam ñépp ñiy gise ni moom ne su fekkee sax ab xutbakat nga kilifa boroom dara ja am xam-xam ci wàllu diine loolu taxul nga gën kenn te it taxul nga am dund gu dul jeex gi nga xam ne lu waay mën a am te amuloo ko amoo dara soo bëggee yàlla dëgg tey déggal kàddoom lu sa xam-xam bare bare du la tax a yëg sa bopp du tax it ngay dëggaate ñeneen ñi ak fu ñu mën a bokk ak lu ñu mën a gëm dangay xoole nit ku nekk ni sa moroom mu yàlla sàkk waaye ngir loolu mën a am ci anam yu wér yu dëppook selaayu yàlla faaw nga jëkk jaar ci yoonu mucc wi la yàlla waajal ci Yeesu Kirist noonu dinga nekk mbindeef mu bees li ko waral mooy yàlla dafa sell te nit di bàkkaarkat jafe-jafeb nit moo di bàkkaar bàkkaar bi nu doone ci aadama moo tax amul nit ku sell fa kanam yàlla noonu benn bàkkaarkat mënula dëkkandoo ak yàlla moo tax koo fi gis mu ngi wuta sell di jéem a jege yàlla moo na sell fa kanam yàlla gëm saraxu musalkat bi rekk la koy taxa def moo tax ci yërmandeem yàlla defal nu xéewal gu xel mënula takk moo yéesu Kirist mi musalkat bi am képp mi dee ca bant ba ngir gàddul nu sunu boru baakaar noonu soo ko gëmee boo deewee dinga rëcc ci safara su dul fay mukk kon ngir am dund gu jeex gi ci yow la des kàddug yàlla nee na yonent yépp seedeel nañu yéesu ne ku ko gëm yàlla dina la baal say baakaar ci turam ndaxte bind nañu ne képp ku woo borom bi ci turam nga mucc ndaxte soo waxee ak sa gémmiñ ne yeesu mooy borom bi te nga gëm ko ci sa xol nga mucc mbokk mi li leer nañ ci kàddug yàlla mooy ku bëgg a jege yàlla faaw nga mat sëkk ni yàlla ci boppam mate sëkk waaye ana kan moo mën a wax ne ku mat sëkk la te sell ni yàlla amul yéesu kirist mu jóge asamaan rekk a ko mën a wax ci biir nit ñi kenn rekk bëggoon yàlla ak xolam bépp mooy yeesu te it ci biir nit ñi kenn rekk a bëggoon moroomam ni mu bëgge woon boppam moo di yéesu nun ñépp dañu yelloo àtteb yàlla ndax sunu ñàkk bëgg yàlla ak sunu ñàkk bëgg sunu moroom waaye yéesu deewal nanu te dekki na ca ñetteelu fan ba li yàlla xaar ci man ak yow mooy nu gëm ne borom bi yeesu mu mat sëkk mi dee na ci sama palaas ngir dindi sama bàkkaar soo gëmee loolu yàlla dina la baal sa bàkkaar yépp te ràng la njubteg yéesu sama xarit bu loolu amee ci yow rekk ci ngay soog a mën a jot nag ci xelum yàlla mu sell mi meññ ci sa dund jëf yi neex yàlla jëf yooyu bokk na ci bëgg sa moroom ni nga bëgge sa bopp moo tax kàddug yàlla naan gannaaw yërmande yàlla bare na noonu maa ngi leen di ñaan ngeen jébbal ko seen yaram wépp na seen dund mel ni sarax suñuy defal yàlla sarax su sell te neex ko loolu mooy njaamu gi leen war bu leen àddina jay waaye yeeslu leen ci seen xel ba soppiku ngeen mën xam bu wér yàlla di lépp lu baax neex ko te mat sëkk kon yow déglu mbaa meloo ni xutbakat yi doon jàppe ñeneen ñi ni ay yéeféer fu nit ki mën a bawoo sa moroom la ak nu mu mën a mel ak lu ko mën a dal ak lu mu ñàkk-ñàkk solo ci bëti nit ñi yàlla dafa ko fonk yàlla du gënale kenn ak moroomam firnde ji mooy mu ngi taw tey fenkal jant bi ci kaw ñi ko gëm ak ñi ko gëmul te kàddug yàlla nee na képp ku mu mën a doon yow mii àtte sa moroom ak ñaaw njort amuloo aw lay ndaxte àtte sa moroom daan sa bopp la yaa ngi koy àtte ndax ay jëfam fekk yow itam noonu ngay jëfe ñiy jëfe noonu yàlla dina leen àtte bu benn gënale laal seen ngëm su ngeen gënalee baakaar ngeen te yoonu yàlla dina leen dab ni ñuy moy ndax te ku sàmm yoon wépp waaye xëtt ci lenn ndigal rekk jàdd nga yoon wépp ci dëgg kenn bañul boppam kon ni nga bëgge sa bopp noonu la yàlla bëgg nga bëgg ko sa moroom moo tax kàddu yàlla ne bu leen yem ci toppatoo seen bopp rekk waaye boole leen ci seeni moroom sa moroom mooy képp ku yàlla sàkk ni yow gis nga bi yeesu ne xutbakat bi ci léebu bi demal tey def ni moom maanaam ni waayu samara ji moom mi dimbale woon moroomam mi tollu woon diggante dafa bëggoon a wax it ne képp ku ko gëm sa mooy nga am cofeel ak mbëggeel ci doom aadama yépp ndax dañu tollu diggante muy soxla bu jàmp di mucc ci mbugalu yàlla gi tiim nit te du jaas ndaxte doom aadama yi dañu dëng te soxor ñu réer lañu fa kanam yàlla su fekkee sax ay boroom xam-xam lañu li wér mooy soxla nañu yeesu mi waa samari bu baax bi ñëw ci àddina si fekk ñu gaañu sonn te kàttanu dee tiim leen kon mbokk mi nuy déglu koo mën a doon am nga soxla ci mucc gi yéesu rekk di joxe ngir mën a mel ni yàlla bëgg nanu fàttaliku ne nu ndamu nit ak xam-xamam ak darajaam mën a tollu àddina la yem ndaxte indaale wunu fi dara te duñu yóbbaale daara bu ñuy dem nit ñax la ndamam di tóor tóor kese ñax day wow toortoo ruus waaye kàddug boroom bi day sax ba faaw kon xarit yi fii lanu yem tey ba beneen su ngeen bëggee xóotal seen xamxam xam ci mbirum mucc gi leen yàlla bëgg a may mën ngeen nu bind nu yónnee leen benn téere bu tudd tu ce le dit te du ngeen ci fay dara téere bii nu leen bëgg a baaxe ëmb na lu ëpp junni aaya yu nekk ci mbindi yonent yi boo noppee jàng téere bii di nga mën a xam bu baax li yàlla bëgg ñépp xam ko maanaam ki mu doon ak li mu def ngir nga mën a dëkk ak moom ba faaw kon nag soo bëggee am benn exemplaire ci téere bii di tout ce qu'on dit les prophètes bind nu ci sunu adresse bi di yoonu njub boîte postale 370 saint louis yoonu njub bp 370 saint louis na leen borom bi barkel te ngeen xalaat ci li kàddug yàlla wax ne ci dëgg yàlla du gënale